salaamaaleykum gars yi waaw maa ngi ziar ñëpp di bëggee ñëpp Boña la ñu ngi nuyu monde lamb ah waaw di wax ne xeexoo bu mag moo am muy face à face Boña Tapha Tine incha allah képp kuy dund lamb ñu ngi lay woo Boña Tapha Tine seen fees su fees cappaacoo yi nag bu doon des ginnaaw waa bu jeex rek jeex na ñëpp incha allah suñu boom defal ñun tam gars yi dina xum dina neex te kon bu ñu ànd ceeg promoteur bu mag bi Pape Kallis ak Leewtoo TV ah mbokku amateur yi mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñu ngi am mbégte lool kontaan lool ci jàkkaarloo bi nga xam ne dellu siwaat nañ ko jàkkaarloo ak yéen ndax suñu jàkkaarloo bu nekk rek njëriñ lu ñuy am la di leen ko jox yéen ñi safoo groupe Futur Média bref yéen ñi safoo télévision Futur Média bu ngeen gisee en large le directeur des programmes de la télévision Futur Média ngeen xam ni am na lu xew ndax damay faral di wax ni nag yu rëy yi ci bés yu rëy yi lañ leen di tëre kon bés bu rëy am na ci sama càmmooñ ngeen gis Pape Thialis boolewul dara ki wax un professionnel hors pair liggéey lu mag ci réew mi liggéey lu mag ci sport bi waaye liggéey lu mag ci li nga xam ne moom mooy làmb ji gis ngeen lim fi def daaw jéeg def ko daaw ren mbokk yi mu tàmbali tëgg komba bi dàq ci combat yi maa ko wax komba bi dàq ci combat yi amul komba bu gën a neex combat Boy Niang 2 doomi Pikin Pikin ji ak nga xamante ni moom mooy Tapha bi Bawol amul mu taxawal ko nag mu war a am juróom-ñeenti fan ci weeru ut ci arène national combat ba dégg ngeen balaa muy taxaw coow la ca am combat bi dégg ngeen fi mu toll booy Niang aki mbokkam combat bi dégg ngeen fi mu toll tafaatin Tine ak i mbokkam jotaay bi nag waxtaan nañu nag ba nar koo fésal suñu nee waxtaan nañ ñoom entre kilifa yi muy kilifa groupe Futurs Médias ak kilifa yi Leewtoo waxtaan nañu moo waral jotaay bii que waxa ni combat Tapha ak Boy Niang exclusivité bi li koy jaay avant pendant et après Leewtoo production gu juboo na ci ak groupe Futurs Médias yépp nag la ñu wax ndax su ñu nee groupe Futurs Médias doo bàyyi l'observateur doo bàyyi RFM doo bàyyi IGFM doo bàyyi TFM doo bàyyi euh, record doo bàyyi support yi nekk ci biir kër gi yëpp moom moom la signeel am nga problème nag ndax kër gi dañuy sot waaye nag heureusement ba indi combat bi nga xam ni Sénégal yëpp moom lañ bëgg moo waral mbër mu ca bëre promoteur dana làqatu ci gannaaw wala wëlbati ko jox la avance ndax xam nañ ni Boy Niang numéro 2 ak Tapha mooy daj dëpp gi waxtaan nañ nag juboo nañu waaye nag am na lu waaj xew liy waaj a xew mooy face à face bi dimanche la fii lay doon Dream Team bi génnaat Alaaji Cerno Njaay génn Malal Junior Jaañ génn Lamine Samba génn euh, Malick Càndum génn ñëpp génn nag ñu war a jàkkaarloo tafaatin ak nga xamante ni moom mooy Boy Niang numéro de waaye laataa loolu Pape gannaaw bi ñu la nuyoo dañ lay jox kàddu gi nga tànnati sa kër ndax yàgg nañoo liggéey nga wax fan ngeen jaar ba lii tey taxaw nga jël sa exclusivité jox ko groupe Futur Média Pape Thialis kàddu gaa ngi noonu. merci Lamine ñu ngi lay nuyu di nuyu directeur télévision bi di Bouba di suñu frère. di nuyu aussi le PDG Youssou Ndour di nuyu bépp personnel groupe Futur Média. donc foog naa ni suñu partenariat ak euh, GFM lu naturel la. Mm-hmm. parce que ba ñuy démarrer làmb. ki ñu njëkk a seet si personnalité waxtaan ak moom Youssou Ndour la. fekk ko a mu jógee voyage ñu waxtaan ak moom. wax ko lu ñu fas yéene def. donc moom aussi mu jox ñu xalaatam. donc bu ñu ñëwee ànd ak ñoom aussi si combat bi je pense que ni lu naturel la. donc combat bi aussi télé yi moom ñëpp ñoo ñoo yem. l'essentiel nga am offre boo xam ne ni tey jii mën na la arranger. et li ñuy groupe Futurs Médias proposé comme offre. je pense que ni ne ñu ko am feneen. Mm. moo tax ñu fas yéene ànd ñoom si combat bi. Mm. donc jox lañ ko exclusivité bi yëpp te incha allah ak seen professionnalisme li ñu si soxla dinañ ko am. ah ndax waxtaan yi yàggoon na wala. non waxtaan yi yàggul je pense que nii fekkoon na njaga voyage yi ba mu ñëwee aussi rapidement dafa dafa. def contrat bi ñu waxtaan xool amuñ si corrigé après signé ko donc on est ensemble je pense que ñu yàggul. Mm-hmm. donc lépp tey lañ ko lañ ko lañ ko réglé. Mm-hmm. Mm. ok euh, face à face bi. Euh, waaw face à face bi dimanche face à face bi dimanche la donc groupe Futurs Médias lu ñuy wax rek mooy ñu au niveau de Leewtoo dinañ fexe ak presse bi. donc invité presse bi ñoo xam ne mais pas ji mais on va inviter au moins des yoo xam ne dina mën a ñëw poser question ñëw fekkee face à face bi mm-hmm. et que ñu ñaan aussi mbëri bu ñuy ñëw mm-hmm. ñu ñëw seen ay staff mais mu am discipline mm-hmm. parce que aussi télé lañu dem te télé bu ñu dem aussi dafa laaj discipline bu ñu ñëwee aussi ñu def lu ñu war a def pour que préparer combat bi incha allah ci ñamali lan nga ñu mën a wax ci lu ndaw rek ci programme bi nga teg pour programme bu ñu teg pour le huit pour le huit waaw programme bu ñu teg pour pense que comme cachet a que làmb gis neen li fi passé nii yëpp dafa manqué côté culturel donc il faut ñu suñu suñu mooy culture bi donc dañ fexe ba culture bi dina am doole ci làmb ji et que mbëri koy bëre aussi daal lañu ñaan def ko fulla ak fayda parce que loolu la ñu xam ci làmb te loolu yëpp je pense que ak mbër yi lan nga waxante Pikine ak Bawol. waaw di lancer appel waa Pikine ak waa Bawol ki nekk am nga sa mbëru bopp nga fexe ñëw. jiitu si stade bi fexe ba euh, ba ñëw ba supporter sa mbër pour que sa mbër mën a jël ndam. Mm-hmm. parce que ñun ñëpp lu ñuy def nii pour Sénégal la et Sénégal tey bu mu pikin ak ba ak di di daje donc dañu war a def tout ñoom ñëpp ñu ñëw nga seen seen doom. Mm-hmm. Mm-hmm. merci. jërëjëf Pape calis la le message est clair fair play ñun ak groupe Futur Média waxtaan nañu waxtaan bi yàggul kon kuy wane ni rek di leeralaat ni groupe bi moom mooy seetu Sénégal léppay léppay ñëpp la te lu lay ku nga ca ma toog ak le directeur des programme de la télévision Futur Média Alaaji Bouba Ndour keroog rek bi ñuy signé les mercredis de l'arène loolu la wax carrément ne groupe Futur Média ubbil nañ buntu ñëpp na ñëpp ñëw amul promoteur bu ñuy xatal ci groupe future Média ndax yaatal la ñu woote bërki démb événement bi fi amoon ci diggante guy gi ak rëg-rëg face à face bi gis nañ ko léegi nag directeur ngeen signé ak Leewtoo production exclusivité combat Tapha ak booy Niang ñi ko buggoon bari na mais kon dañuy wane rek groupe Futurs Médias léppay ñëpp la dama koy waxaat lu ne kunee nga ca ñu yombalal ko téléspectateurs yi di leen wan ne bi en direct lay doon promotion komba bi fii la face à face bi fii la dimanche incha allah rabbi directeur négocier ngeen ba génnee ngeen ko nag ci place publique bi diggante Leewtoo ak groupe Futur Média ci Tapha Tine ak Boy Niang numéro 2 le directeur des programmes Bouba Ndour kàddu gaa ngi noonu. Euh, jërëjëf Lamine euh, merci euh, ñuy dalal aussi Pape Thialis mi nga xam ne moom ci kër gi la bokk aussi parce que damay comme li nga wax rek fii moom kër ñëpp la pour man suñu responsabilité mooy li nga xam ne mooy làmb di suñu sport national. képp ku yeewoo ci réew mi rek war nga ci dugal sa loxo ba ñu ko gën a ma mën a promouvoir parce que bu làmb doxee Sénégal moo dox parce que moom la ñu moom moom lañu am donc ñu koy félicité encore si confiance bi mu joxaat encore euh, télévision Futur Média ak groupe Futur Média pour combat bi nga xam ni euh, combat bu am solo la parce que ku xam euh, Tapha Tine xam parcours am ak ak lépp lu mu def si làmb gëjoon nañ ko gis ñëpp di ko xaar ku gis booy Niang aussi gis que ni indi na benn fraîcheur dara lu bees ci làmb ji jóge na foo xam ne euh, ci gune yi la ba ñëw ba nga xam ne bokk na ci mbër yi nga xam ne ñoom la ñu gën a ràññee ci biir euh, Sénégal donc mu vraiment mu nekk événement bu nar a mag mais aussi boo xam ne nuroo na ak li nga xam ne kër gi noonu lay fonctionner donc bu kenn ragal dara parce que effectivement combat bi à partir de maintenant ba incha allah jour ba muy am dinañ ci accompagner promoteur bi def ci moyens yu am solo indi ci aussi ay xalaat yu bees pour que volet culturel boobu muy wax vraiment aussi ñu apporter ci parce que ku xam aussi groupe Futurs média xam ne du ñu ñëw rek pour pour diffuser dañuy ñëw pour apporter aussi valeur ajoutée te li tax télévision bi jiitu ci télévision yi aussi il faut ñu koy wane à chaque fois donc je pense que nekk na ci kër gu am solo kër goo xam ne ñëpp xam nañ ni euh, quand c'est important c'est vraiment ici donc euh, lu am solo la ñu war a dugg ci ci euro bi war fi war a yëngal réew mi jóge ci euro bi nag euh, nara nara nara jubal le 8 euh, août incha allah pour que combat bi nekk combat bu bu am solo ñaari mbër yi ku leen xam-xam ni bés bu nekk rek dañ koy jox ak xam donc fii defe naa du match nul du fa am mais victoire moo fa nar a am yàlla nañ ci yàlla yóbbu ñu koy wax vraiment que incha allah confiance bi mu ñu jox ñun ñu jox ko ko dañuy ànd liggéeyandoo. yaatal parce que borom kër gi yaatal la woote combat bi combat Sénégal la kon combat wu ñëpp la képp ku xam ne gis na ci boppam war na ci mën a apporter quelque chose ñu ngi la ciy dalal jërëjëf Lamine. jërëjëf dégg nañu kàddu directeur des programmes bu groupe Futur Média di Bouba dégg nañu it euh, kàddu Pape Thialis mi nga xamante ni moom moo jiite le Leewtoo production euh, lii nag mbokk yi dañ leen doon ñamali rek pour wan leen ni c'est officiel que nii groupe Futur Média lëkkaloo na ak Leewtoo production kir promotion bés yi nga xamante ne am na ko te xam naa ni Pape Thialis yemul rek ci tafaatin ak nga xamante ne moom mooy Boy Niang numéro de man maa leen ko wax. di nga gis yeneen te lépp lu muy taxawal incha allah rabi groupe Futur Média la ciy àndal ndax wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla leader ak leader ñoo mën a ànd. te groupe Futurs Médias leader la ci fànn bu nag nekk Pape Thialis it leader la ci fànn bu mu nekk ci sport bi en général làmb en particulier kon nag léegi mbokk yi dañ leen di wax ni que nag léegi jeex na fu ngeen dëggati combat tafaatin ak Boy Niang jàppale ni groupe Futurs Médias moo yor promotion bi pendant avant et après léegi nag dañ koy xaatim en direct diggante le directeur des programmes Bouba Ndour mën bés lool moom it mën bés lool bëgg kër gi lool jàpp lool nag ba Sénégalais yëpp xam ko muy nitu dëgg bu ñëpp Sénégal yëpp xam euh, Pape Thialy si ka saale ka naka noonu yaakaar naa ni li ñuy càmbar nañ ko xoolaat nañ ko directeur dañ leen di bàyyi ci kanamu Sénégal yëpp ndax wax dëgg yàlla nag ah wax waxaat du bari wax waaye leerali wax la pour ñu xam ni signe nañ ko mooy c'est fini mooy abana mooy jeex na tàkk ñu xool léegi diggante groupe Futur Média ak Pape Thialis ni ñuy signe contrat bi pour wane léegi jeex na euh, directeur yéen la sénégalais yi di xool. Ah! xaasim way noo ngi deeti door aye yaayi jël joob saango mahaare way ne tafaatin fi doo fi ñaaw way tafaatin ayaay buree fanin kaay tafaatin buree fanin kaay man way naa la ndax yaa ma doy yaay ñi doo seen moroome ayaay man wax naa ko booy ñaa bàkkul bëree doom bilaay tey la sama yaa ni ñaan man way naa la ndax yaa ma doy yaay ñi doo seen ma ne bis bi rëy na kan mooy tëgg bis bi kooku mooy papa jali soy man way naa la papa doo fi ñaaw yaay ñi doo seen maroome Leewtoo production ak groupe Futur Média xaatim nañu euh, léegi lëkkaloo bi dox ci seen diggante kon léegi jeex na takk pendant avant et après waaye ñu leen di jox daje nag incha allah rabbi dimanche bu neexee yàlla suñu borom à partir de vingt et une heures face à face Tapha teew Boy Niang numéro 2 teew fan toog leen seen kër yi ngeen seetaan télévision bi euh, sénégalais yi toog leen seen kër parce que bii face à face boo xam ne la du yomb parce que il fait partie des meilleurs combats du Sénégal bref de la saison Tapha ak Boy Niang numéro 2 en direct ci télévision Futur Média en bas en arrière. fii ziar naa leen waa Leewtoo TV waaw mais am contentement ngeen dëkk ma seen micro teg ma seen caméra. li waral nag lii mayam ci mii sunu suñu rakk ñu nag moom tamit suñu xarit la ñëw signé ak TFM pour ban komba Tapha Tine Boy Niang amee ah, ñëw na ci këram lu koy ñaanal mu yëgli ko sagom ah duñ ci mbébét moom ak waa télé bi suñu borom def ko daal lenn xam naa ko combat bu rëy la ak Bawol boobu combat kenn mësul gis lu mel noonu Boy Niang ak Tapha bu ku ci nekk daal di def sa ay preuve calis ko ça va être leer ba leer moom mooy combat bu neex ñu loolu mënu wax si euh, collaboration entre Leewtoo production ak TFM. waaw mais c'est c'est magnifique c'est magnifique man maa ngi nii ñëw di def ci wëndeelu dajeeg Lamine Samba mu wax ma lu mel noonu mais contentement la ci ñoom ak ci moom ah, euh, collaboration bu baax la bu am maanaa et mu nekk combat bu am maanaa tamit ah Tapha ak Boy Niang combat bu rëy la bu ñëpp di xaar donc nag TFM signé ko ak sunu rakk euh, Thialis li may wax daal moom mooy wuré a dem na kër Leewtoo merci kontaan ci yéen salaamaaleykum gars yi waaw gars yi maa ngi ziar ñëpp di bëggee ñëpp Boña la ñu ngi nuyu monde lamb ah waaw di wax ne xeexoo bu mag moo am muy face à face Boña Tapha Tine incha allah képp kuy dund lamb ñu ngi lay woo Boña Tapha Tine seen fees su fees cappaacoo yi nag bu leen des ginnaaw waa bu jeex rek jeex na ñëpp incha allah suñu boom defal ñun tam gars yi dina xum dina neex te kon bu ñu ànd ceeg promoteur bu mag bi Pape Gallis ak Leewtoo TV ah